بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu di dellu siwaat ak yéen ci seen eh, taskiru saba ci numéro di leen jéggul démb ci 467 eh, bi nga xam ni waxtu wi ñu ko doon def bi ñu ko defee munte jàll ba ci ngoon gi ay six yooyu mu soog a jàll te xool naa léegi ndekk te am na ñoo xëy jotuñu ko euh, mbind mi rek lañ jot ñooñu nag lañuy xool ñi xëy am nañu ko ñu jël ko ñu diglu ko ndax ëpp naa bañ a diglu ci ñu doon topp silsila bi wala boog bu ñu la woot bu ñu amee jot ñu jox leen ko am na ñoo xëy amuñu ko mel na ni sama goro yi ne fële ci Louga ñoom it amuñu ko euh, xam ngeen ni noo ngi nag beral nag euh, ngërëm sëriñ Balla Niang moom mi nga xam ni <clears throat> démb moo def yitte sax ba taski bi mën a jàll ci ngoon gi waaw def na ci yitte ju mag ba taskir bi mën a jàll ci waxtu woowu nga xam ne ci la mujj jàll ñoo koy ñaanal ñaanal waa këram yépp te li ne ci moom moo ne ci ñu bari ndax ñu bari bu ñu xamal ni jafe-jafe boobu lan am dinañ def yitte ngir taskiir bi mën a jàll comme ni mu ko defee waaw di ko laaj ñengeen yu ndaw yi ñoom euh, nu ñu fanaane di euh, sama gàmmu yépp ma di leen tooñ rek ñi jeng ak mbooj ak jaañ ak faal ak ñëpp waaw loolu dafa am solo dafa neex dañ ci musa ñëw sax insha allahu ci am solo gu wàllu kal gi Sénégal am nim ame solo waaw taskir moom du bàyyi ruq yooyu moom da yee nit ñi rek loolu la bëgg euh, mbokk yi ak dëkkandoo bis bi ñu jóge nii eh, ku ci tooñul nit profité balu ko ci ci loo xam ni ndax daa mbokk mu ni ah, moom daal am na koo xam ne amel na ko loo xam ni Euh, munu ko koo wax daal waaye daa bàyyi bañ daj ci jullikaay bi rek mu jox ko loxo ne ko bal maaq bal naa la bal maaq kooku nee na ko bal naa la kon xelam dal na waaw loolu kay mën naa nekk ndax euh, bal àq mun la bal naa la àq loolu àq ji mën naa dañ waaye àq ji mën naa bañ a dañ ndax lan moom kat dangaa jëlan benn dix mille francs xamul ku ko jël mu jàpp ne dañ ko sàcc ndek yow la wala da nga ko ameel bor boo xam ni euh, xaalis la euh, moom fàtte na ko yow fàttewoo ko wala fàttewu ko sax waaye bi nga ko ne baal mbaax dafa jàpp ni àq yi dëkkaloo yi ngeen seq la waaye bor ba boo bëggee baal la ko danga ko ne ah su bi di amee naa la dix mille yu yàgg de euh, nang ma ko jéggal bul ne ah jéggal naa la ko kay waaye baal naa la àq moom bor yu ngeen jokkalante wala akam joo jël te yëgu ko ndax da ko yëgul xam nga lim yëg la lay baal kon yooyu yu mat a leeral la ay di profitowaal ci bis bi rek xam naa baax na de ay day mu ne li ma gëm mooy euh, bor moom atte bor moom fay rek wala nga tudd ko mun la baal naa la ko waaye bu ko ci boole waale noonu loolu déedéet waaw su ko defee pax yi ñuy gas euh, nit ñi euh, di ci tàmb ci guddi gi yëpp boo noppee da nga koy suul dañ koy suul ñu bari buñ noppee fañ doon defaree rek ba jël ndawal gañu soxla la ci des daal dañ koy fàtte ñun ñëpp loolu ñu ngi ñuy dal dañu dellu ci barab yi ñu ko doon defaree daal di koy suul ndax saret ba ca jaar ak ku doon dox oto baag ñëpp nga sax xar mu ca jaar dugg ca wala nag fas àq jooju yaa ko ameel bàyyi ma yi liñ leen dañ leen di ameel àq ci saa yoo xam ne noo leen def loo xam ni sunu négligence la waaw moo tax mu bokk ci islaam bokk ci ngëm yàlla nga am luy gaañe ne ci aw yoon ne ci fu ñuy toog euh, nga randale ko loolu dafa bokk ci ngëm yàlla waaw fa ngëm yàlla tàmbalee ba fam yam ah, la muy suufe suufe mi ngi tàmbalee ci wàllu googu imaatatu asa ani tarif ñu noonu lislaam bàyyiwul dara dara dara ah xam naa nag moom tabaski nañ ba noppi waajal nit ñi ci boroom ñetti jabar ak ñeenti jabar yi waaye li ma jaaxal am na sama goro yu ni ñoom day gisuñu seen bopp ci tabaski gi mun leen lu tax ñu ne ah aawo yi ñoo féetewoo seeni xar te ñoom dañoo war na wax ni ki ci am ñaari soxna na am ñaari xar waaw kon de xam naa noo ngi leen di jégul ndax ginnaaw lislaam moom dafa sant nit ki lam man eh, boroom kër gi eh, am na ñaar waaye menn xar la am mu daal di koy lottal eh, ki nga xëy moo fa jiitoot mat sëkk ndawal ga yépp mu teg ko ci loxol rakk ji ñaareel bi ñaareel bi jiitu ñu ànd ànd bu rafet loolu noo leen ci gërëm bu baax a baax ci defeen wu rafet woowu nga xam ni euh, wax nañ ni lislaam dafa aada yu rafet yoo xam ni day li diine dañuy gis léegi rek ànd bu ñaari soxna yi ànd bokk génn kër ni ñuy noppali seen borom kër ci àndin wu rafet wa ci seen borom kër bu amee dara indi muy lenn xawul lu mu koy def teg ko ci loxol aaw bi aw bi xool loola nu mu gën a jekke mu def ko noonu yu rafet yooyu léeg-léeg mu am ci kër yi rafet lool lool ànd boobu la ñuy ñaanal mboolem ñi nga xam ni ñu ngi nekk ci yàlla boole leen uh, wërsëg boole leen benn borom kër loolu programme suñu borom la subhanahu wa taala loolu mooy mooy ngëm yàlla ci bëgg nit ko xamee kon xam naa ba déwén ak jàmb rek suñu goro yooyu di leen fexe ba bu déwénee ñu gis ci seen bopp xam naa incha allah alhamdulilah li ci tegu mooy noo ngi doon ñaan taw bii gis nañ ni yaa taw bi xam naa defa naa yaatu na ndax wootee guñu ci gox yi nga xam ni dinañ fa woote incha allah waaye tuubaak jum lu fekk bare na te xam naa jombul mel na ni daa bàyyi ko ci wet gële soo ko ñëw ci wet gii euh, yaatu woon na daal ci wàllu nin nin ko jorte yàlla yàlla def mu am njariñ loo xam ni dina kawe njort ba liñ jàppan ni dana yàqu lépp saa borom defar ko ndax mën na ko suñu borom taw bi mën naa manqué lool <coughs> ab tawat <coughs> ab nawet mel noo xam musu mel mën naa bari lool ci suñuy bët waaye nawet bi du mel nen ko fooge wan ndax suñu bilaat mus naa wax lu mel nii ni nañuy ñaan xewal ndax naataange moom maanaam xewal ko gën a yaatu ndax xewal moom bu ñëwee rek daanaka euh, lépp day kawe njart ñun yàlla defal xewal nawetub xewal euh, ci euh, nawet bii nga xam ni ci lan toll ci lan toll su ko defee mbokk mi ni moom ñi nga xam ni dañuy jóge màkka nañ ci def ay waxtaan waaw xam nga niñ doon waaje di leen gunge mu am ay événement ñëwee dañuy taal tàmbali di wut ay hôtesse man xaw ma lan mooy hôtesse ci àdduna man hôtesse bu njëkk ñu doon dugg ci avion yi jigéen ñi nekk ci di ci liggéey nekk ay hôtesse booba laa daa dégg tur ay hôtesse ñëw ba di leen gis ci ndakaaru léegi nag dëj dëjëk ku jóge Màkka yooyu yëpp yëpp ah, ak cant sax ah, ab ab ab tuuru tuuru famille yëpp cummite sax cummite tumiti waaye ginnaaw ab dëj ci la ñu wuti otes kay xam bi sub sarax ba ñu bokkale lépp lépp lañu ko folkloriser sëñ bi waaye wax yàlla jóge màkk wërte nekk événement jar na nag bëgg nga ndokkeel ki nga xay moom moo deman ci mbégam mii nekk sa mbég ndax am na benn ponk boo xam ne jullit yu bëree bari mënuñu ko am muy dem màkk moom am na ko kon bu ñëwee nga ndokkeel ko won ko ni ko bëgg naa ci li la yàlla xéewalal maa ngi koy bokk yow mbég mi ndax bu doon safaani da ngay dem nga naqarlu ko comme moom waaye jërul nag yenn dépense yu yu bari yi ciy def wax dëgg yàlla jërul it euh, folklore yi nga xam ne non ciy def jërul yi nga xam ni ñi ko ci teg ki deman nga xam ne moom bu ñëwee mooy jox nit ñi ak léegi lan luñ tudde sërita waaw bu fekkee nag nit ñi dañ koo joxoon dañ ko joxoon moom it bi muy dem eh, loo xam ne kenn ku ci nekk la nga koo joxoon yow bu ñëwee nga yaakaar ni kon ginnaaw joxoon ko ko war nga am ci sërite yi loolu moom mooy gën a yaatal mbir yi te léegi ginnaaw mbir yi noonu la demee ñu tàggoo ñu bari dañ leen di jox ñoom it bu ñuy ñëw rek ñu leen joxoon ñëpp ay gor lañu ñu waajal leen ci liñ jëndoon bàyyi ko fii senegaal ndax sërite yu bari ci waa Màkka yi léegi kat ndekete dañ koy waajal jënd ko fii ba noppi. Euh, avant ngay dem màkk nga jënd ko xam naa daal euh, lu ci dul daal euh, li nga xam ne moom mooy sam-sam ak tàndarma daal mën naa jóge fii ci senegal lu ci ëpp lépp ah sam nag moom xañ na ak tàndarma ja moom mu jóge fële rek ah, yàlla yàlla nangul yëngu yi yépp waaye daal liñ ciy wax daal waajtaay wi ñu leen di waajal daal ci noonu la waaye mi ngi mel ni ki def defi ak jaamu yàlla ba ñibbisi muy lan dafa dem jumaa rek julli ji jumaa ñëwaat dafa demal julli ji salaatu eid ñëw na amul lu ko waa kër gi di wan loo xëy daw ñu ko wan amul lu ñu koy teeroo tey nag màkk moom ay benn benn am moyens yi pour dem ca waaw te ab sag la ci neex na ci xol loolu rek la waaye lii ci bool ni bu njëkk bokk ci woon yépp yu bees la xool rek fanweer ci ginnaaw ak léegi nii suñuy aada soppi ko aada yooyu nag dugg ci diine ji ba indi ci diine ji loo xam ni wax dëgg yàlla ay coon rek la ay fere dong la xew yépp lañu sensé muy dëj yi xew yépp rek rek te xam ngay kanam la jëm bu ñu amaatee trente ans ci ci ci kanam noonee la la euh, àdduna def nit di ko def ba jële ko ci fitra bi nga xam ni moom loo ko yàlla euh, euh, euh, baaxoo mu jóge ci nag bàyyi boppam ak àdduna nag gis nga nag àdduna ba tax léegi bu ñuy bañ mu fëkkal la dara nga tëj si bunt ah xareeg moom ba du la gañe moom àdduna lii rek la Cheikh Ahmadou Bamba jamono mi wasul menn maam suñ moo Lamine Gaye moo Lamine Gaye wool ma fere yi moo Lamine Gaye woote suñ tubaab tàng lool mer lool ni ndegam maadaa boole ay nit eh, ak mbooloo ñu ànd di foo ba naa ko tey ndax booba ñi mu seexal ak ñu bare bari kër yi tàmbali naa soppeeku xewal gi ci lay lay yi ànd ak yàpp wata boor wi eh, nit ñi ñu ngi tàmbalee mm, am eh, ak coppeeku loolu rek li muy woyof woyof woyof ci nu ñii moom diis na ci moom waaw ndax yoon moom jaaraloon euh, mag ña nekk gànnaar di fande di dëje euh, vingt-quatre heures yëpp doo ci weesu benn tibu benn tibu pepp ah wala baraay suusal di xiif ak a mar ñu lay tàggat di la defar leer yi di fengat sa xol bi di dund suñu borom subhanahu wa taala tey bu la neen amee loola nekk musiba ci moom gis nga ko kon booba da gis na lii ñu tàmbale xañ na woyof na waaye am na fu mu leen jëmee na ko daal di faj jàngoro ji na ko daal di faj jàngoro ji wax nañ ni mooy jamono ya muy soo ko seexal sëriñ Rijaal euh, Sekk radiyallaahu anhu mu tedd moomu ñoo ngi siyaar njabootam suñu Sam Sekk alakul alin kon muy it nan xam ni euh, ndaw ñi ñëw la yërëm nañ leen yërëm nañ leen ndax lii ñu leen fi waajal tegal leen ko fi bu ñu màggee dafa nit ci diine ji la bokk te bokk ci moo tax ku war a leeral na leeral mbokk yi xool lu ñuy bind la wala lu ñuy wax bàyyi fi nañu leeral ndaw ñi li ci bokk li ci bokkul waaw jóge màkk jërul yenn euh, mobilisation bi jërul yenn fere yi yenn dépense yi jëru ko jëru ko waaw mbokk mi ni mu ni waaw ndax lan mooy kabaay kabaay den si ñëw insha allahu bàkkaar yu mag yooyu nga xam ni juróom-ñaar yii yonent bi wax ni euh, ku ko deewaale da dem sawara day yóbbu ni sawara am na ñu ni ëpp na ko dangay jàpp ni kabair mooy bépp bàkkaar bu mën a yóbbu ni sawara ci la bokk am ñu ko wutal yeneen lim waaye yow ci sa bopp na nga fexe ba euh, lépp lu ñu ni bàkkaar la rek nga daw ko comme ni ngay dawee nit ku ñu ni dafa am sida sida day wàlle nit ku ñu dafa am woppi ngaana boo ko laalee mu wàll la xool xool nin koy moytoo bu booba bu toogoon fee di yelwaan sax bu boogee sarax sax léegi ah, bu la tàllalee sax léegi danga ko koy sànni da ko koy sànni ndax la da koy daw ah? waaw lu it bàkkaar yooyu duñ ko dawe noonu mënuñu ko bakkan yi bànneex ñoo noo am doole di nu dominer di nu ñot di ba bàkkaar yooyu mu bokk ci suñu dund léegi yéen ñëw incha allah li ñu mujjee noo ngi ci weeru mujj ci at mi nga xam ni defe naa mooy 1439 hijriya mu mujj ci euh, weer mu mujj ci at mi muy weeru tabaski kon nuy waajal euh, weer wu jëkk wi muy weeru tamxarit mu mel ni kon dund gi sag dund yaa ngi ci catul euh, yaa ngi ci catul at mi bëgg dugg ci meneen at mi waaw moom sa at mi nga génn moom mbaa jàng na waay mbaa bokkul ak ci at yi nga wees yëpp mbaa moo ci tane moo ndax ndax xam nga di nga ko génn walla déet wóorul la de moo ndax at mi ngay dugg est-ce yow du la fekk ba sàq wóorul la de wóoruma de waaw at moomu ndax moom bu la fi fekkee waaw ah mbaa dina fekk nga jàkk mel ni yàlla bëggoon nga mel nii wóoruma maanaam laaj yu baree bare bare mbokk mi ginnaaw loolu wóoru la nag wóoruma lislaam mi ngi nii njàngale mu leer dëkk suñ nopp bi suba ngoon nu daal di delluwaat ginnaaw rek daal di xam ni euh, jóg jot na kon daal numéro defe naa 468 bi noonu fii la yem rek bu suba jàmm incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu déwénati